diw dañu ko sol dañu ko sol diw dañu ko sol ba mu am xam-xam diw dañu ko sol yeneen ci bi kenn solu ko duñu ko jàngal kon nag ñi ñu sol nañ ci bàyyi xel waaw wa qaalu lawla nuzila alayhi alquranu jumlatan waxida lu tax soluñu ko kaamil bi yàlla ni ndongo la moo tax ndongo basin numéro lañ koy jàngal yéex na xamuloo ni lay sorewul ki bëggul a dégg rek moo tax mu sore waaye ndongo kay basin numéro doy na ko yonent bi ndongo la kenn du ko sol na ñëw jàng ni ñëpp كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا نعم ورتلناه ترتيلا الجوجل جود بند بن لا جوخ سي سوبا غودي غنا دال جانغكو ناخ مو موب كون muy jaaxle di jaaxle waaw di jaaxle waaw ñamu yaroon doola ñu di ko xool xam ni dundin bu bees ñëw na ci moom xam ni yittey wattu lañu ko bindal ñëw na ci moom waaw muy jaaxle te ñemi wu ko laajte ni ñu koy jàngale kan moo koy jàngal waaye tam ñu ko koy sax mu di ko dégg iqra bismi rabbi alladi xalaq xalaqa al insana min alaq façon bi na mu demee ñu ko méthode la moom la sëriñ di jàngale taalibe wa innahu la tanzilu rabbil alamin نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وانه لفي زبر الاولين يعني كانت جراول جانجلين وخمي دنكو يندي ديكو ديف تي خول ديكو جانج توتي توتي ديكو جانج نك تي لامنيو عرب ndax moom nga namp te ñoom nga nekkal te ci ñoom lay jóge dem àll waaw te it nga xam ni wéetoo woo ko jàngal naa ñeneen ndax mu bañ a def ci yow ak rëy nga defe ni yow rek yaa ko am wax rëy bu duggee yépp yàq waaw rëy bu duggee yépp yàqu